information. c'est le parrainage kenn ku nekk xam ni parrainage dafa bokk ci élection législative cela veut dire que bépp parti bépp coalition de parti bépp candidat indépendant ou bépp liste indépendante bu fekkente ni dafa war a dem ci élection yi dafa war a collecter 0,5 pour cent du fichier général des élections mu tombe ci 34 000 et quelques signatures yoo xamante ni il faut nga am ko. parce que boo ko amul doo mën a bokk ci élection yi mu am plafond plafon bi nekk 0,8 pour cent du fichier électoral c'est-à-dire mënoo dépassé déposé lu ëpp 0,8 pour cent du fichier électoral mënoo déposé lu gën a yées 0,5 pour cent du fichier général des élections ñun nag en tant que parti politique légalement constitué dañ cee war a takk rip dañoo war a def a def de telle sorte que lu ñu mën a dajale ci ay parrain à travers le Sénégal ci biir réew mi yëpp lu ñu mën a dajale ay parrain à travers la diaspora ñu dajale ko comme ça ñu xam ni le parti rassemblement pour la vérité est un parti fort le parti rassemblement pour la vérité est un parti représentatif te loolu yaakaar naa te loolu yaakaar naa ni parrainage bi nekk na élément de mesure nekk na élément de mesure bu ñu permettre ñu xam suñ poids électorale nekk na élément de mesure buy xam bu ñu permettre ñu xam suñ gëdd. ci biir njaareem bu ñu permettre ñu xam suñ gëdd ci biir Sénégal ñu xam suñ gëdd au niveau de la diaspora kon yaakaar naa ni loolu rek war na tax ku nekk farlu ci loolu rek war na mën a tax ku nekk nekk ci donc pour que ñu am le maximum de parrain. am le maximum de parrain nag bu ko waxee je pense que grand Ousseynou Fall wax na ko doyen Malou ñëwaat na ci. du tëju ci am néeg di remplir ay fiches yaakaar ni da ngay da da ngay naxaatee naxoo kenn ku dul sa bopp ngay nax du tamit yore ay photocopie carte d'identité li may wax ni c'est important waxuñu kenn tëju yore ay carte di remplir fiche ki ngay ki lay parrainé dafa war a nekk koo xamante ni moom ci boppam mooy yëkkati loxoom ni dama lay parrainé ñëw remplir signé ñu xam ne moom moo parrainé parce que bu doonoon bu doonoon remplir ay fiche kese man ñu bari xam nañ ma ci pare naa ci Sénégal fu nekk débarqué naa fa. yaakaar naa ni bariwul ñu ma xam gën a xam réew mi ci réew mi ci caméra lay waxee bariwul ci réew mi ñu ma gën a xam parrainage. ci réewum Sénégal bari nu bariwul ñu ma fi gën a xam parrainage ñu ma gën a maîtriser schéma bi bu doonoon loolu rek la mën naa remplir quatre-vingt mille fi ma toll nii mën naa toog man kese remplir quatre-vingt mille parrain yoo xamante ni yëpp carte d'identité yu lu baax mais c'est pas ça qui est intéressant ñun dañoo amoon yéene démb yéene jooju démb dañ koy lawal ba tey yéena jooju démb mooy dañu am compagnage ak le ministre Dame Diop mooy suñu frère nekk ki nga xamante ni nii neexul ba neexul liggéey na ci dëkk bi lu mérité woon mu jël mairie bi ça c'est la vérité te comme liggéey liggéeyoon na ci dëkk bi lu mérité ñu jël mairie c'est pas parce que élection locale passé na rek que dañuy woon ginnaaw kii que ce soit naan léegi comme ñàkk na dañu ñun nous sommes pas comme ça oui oui na ko ñëpp xamee noonu Nous allons continuer à travailler avec lui au niveau du département de Diourbel. Je profite de l'occasion pour wax ni ñun parti Rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor tous les parrains toutes les listes que nous allons obtenir au niveau du parrainage nous allons remettre ça au ministre Dame Diop au niveau du département de Diourbel. donc ñëpp xam teg ji wuñu di ko jox keneen ñun nous du département de Diourbel au ministre Dame Diop après nag ku ku ko remettre baax na il n'a qu'à remettre ça au délégué régional Malick Fall celui qui a été désigné par le président de la République bu boobaa loolu moom lay concerné nous ne sommes pas contre parce que pour parrainer il faut obligatoirement sur la liste avoir un délégué régional du plénipotentiaire du mandataire de coordonnateur du dara c'est un délégué quelqu'un qui a été délégué pour que mu superviser parents yi au niveau de la région d'où le nom de délégué régional parce que wax ni dañ ma doon laaj ndax da ngay nekk candidat encore une fois ma ni leen man je suis intéressé kenn bañut a nekk député rawati nag boo nekkee chef de parti nga xamante ni di nga am possibilité dem assemblée nationale taxawal fa sa dëkk taxawal fa Sénégal donc je suis intéressé te yaakaar naa ni bu ñu ma investir damay jël may ajouté sama yéene mooy ma nekk candidat mooy sama yéene par contre en toute logique pour être logique avec moi-même pour aussi respecter discipline bi ñuy woote ci suñ biir parti je pense que le minimum idéal mooy bu ëllëgee buñ tabbee keneen koo xamante ni nii Benno Bokk Yaakaar da koo tabb muy le président Macky Sall tabb ko bu booba aussi nous sommes obligés de l'accompagner parce que kenn du toog branche kenn du toog ci branche di ko gor encore une loolu leer na kon mani président de la république mën nañoo désigner mën naa désigner keneen moi je suis intéressé je l'ai toujours dit bu ma nit ñi défendre bu nit ñi fexee ba ma nekk candidat bu boobaa danaa def li ma man pour ñu gagner au niveau du département de Diourbel te yaakaar naa ni mën nañoo gagner au niveau du département de Diourbel loolu kay dañ léegi nag bu ko defee à ce moment là ñu dugg ci terrain bi rek campagne noonu lay demee bu yàlla aussi defee ñu choisir keneen donc li nga xamante ni nii daan nañ ko def muy suñ mën a mooy ñu ànd ak moom ci ngor jàppale ko pour que le président de la république mën a gagné donc loolu mooy loolu. information.